ñépp a ci daan jariñu am na bi Sëriñ Tuubaa wax kenn ci mag ñi ne ko dama laa gëj gis de foo nekkoon mu ne ko maa ngi woon dëkk sàngam ba ma fa jógee dem naa dëkk sàngam ak dëkk sàngam ak dëkk sàngam ak dëkk sàngam sëriñ bi ne ko xii man de bu ma sañoon ku ma ne ci foone mu ne ma maa ngi ci alwaajibu man manduub bu ma sonnee noppalu ci al mu baax dal na gees sëriñ ba bàññi ne ko yow foone mu ne ko maa ngi fanga nga ma bawoon mu ne ko waajee la yeekat euh, sëriñ Tuubaa euh, mooy koo xam ne nii lam an xumaalam yu fi di dundam gépp dafa am njariñ waaye tamit noonu la daan yaree noonu la daan soññee tamit ci bépp jullit rawatina ak njabootam seen dund ñu bañ cee neenal dara te lépp ñu moomale ko yàlla sun borom tabaraka wa jamono yi mu nekkee mbakk Kajoor it nga xam ne nii ci la yoonu mu di doo ko sosu nga xam ne ñëwagul Mbàkke Bawal tërbiye gi mu daan tërbiye ñu njëkkoon a jaayanteeg ñoom tërbiye gu métti la woon gu tar ngoo xam ne nii dañ daan rey seen bakkan ci jaamu yàlla ak liggéey ak sikar ak lépp lu baax rek am na bis nag mu woo leen dajale leen bañ dajaloo mu ne leen kaay leen ma yee leen ne leen lislaam ñett rekk la mul waa muy waajib ak mandub ak mu baax dal ne xam ngeen luy seen waajib yéen ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne wàcc lal yi te dem ci der yi jaamu ji dal ne xam ngeen luy seen mandub ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne wàññandiku ndamu bañ ne démb la woon bis penc xam ngeen luy seen mu baax ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne dara dara dara dal ne dara ju njëkk ji mooy àdduna mii de ko xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des àllaaxira mee de ku xam ci moom dara doo def dara ci lu baax ba naw ko ndax dara du fa doy yàlla mii ku xam ci moom dara doo ko mooy ci dara ndax mooy borom xudratu ak iraadatu te bu yëkkatee yaram ba dey kenn du ne ko déet kon nag kooku mooy sunu yaakaar sëriñ tubaa masta neenal ak dundam mësta neenal dundu kenn kon nag waxtu wu nekk nañuy dellu ci am jàngaleem nañuy dellu ci nam daan yare di cee jubbanti sunu bopp bu ñu bëggee jariñu ci moom àdduna ak àllaaxira ndax moom mësta nax kenn waaye kenn mësu koo nax dafa daan wax ne yàlla day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 in uridu illa al islaaha mastataxtama tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh